alal jiin bismillaay ma dee ci door maam góor gi njaay sutub maram jiin bàyyi maam maram njaay réew maa ngi may soow te ku réew mi soow booba danga siiw bàyyi ndey ak sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg ya na maa jiin papa ngi nii moom nag sama mbaa xam sama mbokkum Real la papa papa bërki dem victoire bi noo ko kontaan nga si Real bër ki démb nangoogu la wax nag waaye ki ma gis mu àndal day ànd naa ku doy waar de am na lum koy solal si loxo bi Cheikh Omar am jox na ko ñeenti galan galan yi nag xaw ma galan yi Dakar la xawma ma galan yi euh, guy la ndax li sax du guy moom lii moom Dakar la war a mën a doon Papa da la ngi tok xana li Dakar la gis naa fi tamit ab yomb bagage tay lal na bawal de bagage yi gis naa fi bagage bawal tay ah way parce que lemay sen yomb la Cheikh Omar yomb sen na fi yomb dundu ñëw na papa wala bok maji maji numéro 2 Baye ma Ndiaye ngi taxaw. Bawol daal feeñ na fi tey xam naa ne Papa daa mel ni jaar nga diggante Réfane ak Kabaak nangal ma ndondol ba Bambey yàlla baax na dugg nga foofu de yàlla baax na yàlla yàlla sutura rek ah. yàlla yàlla dolli sutura mais forme bi moom bi ma gis man daa mel ni Papa tey la gën a liggéey ka combat yi passé yàlla yàlla dolli sutura baakar billaahi ah. yàlla baax na daal suñu borom bëri na sutura yàlla yàlla sàmm sàmm baax saa ngi ñu sutura incha allah tey bés bi bu ñu fonk la daal en tout cas. tey ngay bëre Real di football tey. waaw Real suma équipe ndam rek incha ah. ndam rek incha allah rabi yàlla baax na. incha allah yàlla baax na nañu yoon yàgg incha allah yow jàmm si rek ah. jàmm si rek. yàlla nañ ko bokk yow jàmm si yow da ah, rek yow sama. xol nga jaajëf. kooku koy maaji maaji numéro 2. Salar mi lay ma dee ci door maam góor njaay sëtub maram jéen bàyyi maam maram njaay réew maa ngi may soow te ko mi soow booba dangaa siiw bàyyi ndey ak njaay maa yàgg ci coow